salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Médina tey ñu ngi fii ci Soumbédioune seet si ñi nga xam ne ñooy nekkoon ay doomu Médina dañ jaay seeni xar fii ci pont bi ñëpp xam nañ doomu Médina macha allah dañu am jom jël seeni association di jaay seeni xar te yàlla def tey ñu jëlee leen ci pont bi te ñoom dañ ñëw seet yi fii ci géeju Soumbédioune bi ànd ak sama cameraman Sëñ Fallou Sëñ Fallou ñu dem ci biir. def yëpp lii mooy Médine grand yow yaay président association des vendeurs de moto fii ji nga xam ne mooy côté Soumbédioune ñu lay laaj grand liggéey bii gi daan nañ gis ngeen ne nekk ci kaw pont bi di liggéey tey ñu gis leen ñu jëlee leen foofu noo leen dundee loolu ah am jaaxle ak lu ñu metti ak lu ñu gënalul am wax dëgg yàlla gënaluñu parce que depuis démb léegi ñu ngi nekk benn place ni moo foo sant ñu jëlee fa te joxuñu la place yoo xam ne yoo xam gënal na la te tout le temps place yoo xam yaa ngi si jëlee ay coow gënal la quoi loolu du ñu gënal lu ñuy bett lañ doon quoi neexuñu wax dëgg yàlla. waaw jànkooneel weesu nga nekk si place tout le temps rek ay nit di ñëw ni la amoo droit di teg fii te bi ngay teg fii def nga li nga def. parce que boo demee am ñoo waxtaanal nga dem lu ne ni maire soo demee waxante ak ñoom école bi directeur moo fi nekk nga dem waxtaan ak bi mun la tegtal ci jàmm boo pare nga di la si a métti ci ñun trop trop trop trop waaw ñu jëlee si point bi benn marché la boo bi da ngay def moderne mooy marché bu mag biñ ñëwee wax ñu ko tamit comme ça ay doomu réew mi doomu Sénégal lañu lu ñuy def lu baax tamit dañ si ànd mais lu ñu ànd kon ñoom ni leen jàppale ni leen jàppaloon parce que wax dëgg yàlla ñun kantin ñu fi def xëy na doomu Sénégal lañu mais la plupart ñun ñëpp du dëkkuñu Sénégal accord nañ ko parce que lu baax la mais kon nag bu ñu nangoo loolu ñoom ñoom kon boo liggéey ñun bu ñu amee fu ñu soxla waruñu amee jafe-jafe ñun mënuñu jógee fii parce que fi leen dëkk suñu clients yi fi leen ñu xamee kon suñu xar yi amul fenn fu ñu ko mën a lu may suñu place rek amul mënoo dem Fass mënoo dem beneen point de vente parce que fi leen dëkk tey même soo fi nekkul am naa ñoo xam nañ kee taxaw ne mën nañ garder gaareel ma sama xar kon mënuñu dem feneen lu may fi ñu dëkk rek nan man jaay xar quoi ah changé bi moom wax dëgg yàlla naqare nañu trop quoi neexul parce que fii moom boo xoole fii di suñu place bi ñu njëkkoon nekk ñun ñëpp fii nekk affaire bi day rafet xar bari bëri mais ren amul loolu quoi loolu moom métti na trop quoi place yi métti na wut place yi métti na gars yi tas nañu loolu moom métti na quoi ñun de xamuñu de parce que gars yi nañ dañuy defar marché bi affaire yooyu ñëw jëlee ñu fi mais affaire yi métti nañu trop wax dëgg yàlla métti nañu trop ndax gars yi nuñ tasee nii moom du yoon jafe nar a moom xam naa dina bëri parce que xar nii wàllu ndox mi dina doon wàllu ndox mi dina don loo xam ne gars dafay difficile wàllu courant bi tamit dina xam dina doon loo xam ne dafay difficile parce que gars yi dañuy tas kii mi ngi fii kii fële te loolu moom day nekk lu métti quoi si wàllu jafe-jafe ñooñ de wax dëgg yàlla yërëm laa leen def parce que parce que ñëpp ñu am place am na ñoo xam ne xamoo sax am na ñoo xam ne sax dañu découragé bàyyi jaay xar te loolu nekkul loo xam dafa rafet ndax lan fii nañu xam fii nañ juddoo fii nañ yoroo fii nañu xam mais gars yi léegi problème bi lii tër problème mooy marché bi gaa yi teg nañ fi affaire yu gars yi tax na jënd ñi ñi doon jaay xar pour ñi ñi am xar ñenn ñi ñi découragé nañ jaayatuñu xar te loolu baaxul quoi. Ah, tas nañu tas nañu parce que ñun en famille la noonu tey jii sama xar yi bu mu saan a toog ñetti fan dana dana ma koy indil nga ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais tey am na place yoo fu demee ñoo xam xamoo leen ma soo dégg jëndal ca ñoom moo dee sa xar mën na ñëw rëcc doo xam fu xar mi nekk nit mën na ko sàcc doo xam fu mu nekk point bi daal wax dëgg yàlla lu ñu mën am moo ñu gënal lu ñu am moo ñu gënal nekk nañ fi mas suñu fa am problème mas suñu am problème si pont bi fii wax dëgg yàlla mais ñëw nañ teg fay kanting pour ñun heure bi ñu ko tegee daaw heure bi dana fekk mu pare ba ku ne nekk si jàmm mais ba tey liggéey bi commencé gul. Yeah.